Assalamualaikum mbokk internet daleen ak jaam Sen Sport 221 dañu koy tàmbaleeg transfert ak kii di Famara Jeju l' international sénégalais dal dinay dem fële ca Angleterre ci équipe bi nga Cardiff City le transfert la boo xam ne na Granada la dal di jógee dañu ko able nag dañu ko able rek ba saison bi jeex moom championship bu Angleterre miin na ko ndax ci club bi Bristol City daf fay at yu sakkan voilà waaye nag jamono bi mu ngi woon foofu la ca Espagne waaye gis nañ temps de jeu match football kon nag loolu waral na xañ nañu able ko foofu lay voilà ci championship ba ngir mu war a mën a retrouver li nga xamante ni mooy niveau am ndax kat nekk na attaquant boo xarañ moom kii di Famara Diédhiou loolu transfert la boo xam ne gars kon officiel na. ki nga xam ne nag mooy Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye bi nga xam ne jeune international sénégalais la nekk foofu la ca Anderlecht moom nag dafa am blessure wala boog li nga xam ne mooy opération boo xam ne dal dina koy am voilà loolu nag waral na ba jamono bi nee nañu ay weer la war tëdd balaa muy wér. ndax daal ne nañu ci naq bi la am li nga xam ne mooy opération loolu nag war ko jël ay weer yoo xam ne war na ko tëdd di ko faju moom mi nga xam ne ñu bëri am nañ ci moom yaakaar xam ngeen ancien joueur Barcelone la mën na jouer comme te maam défenseur central mën na jouer tam li nga xam ne comme latéral gauche polyvalent la moom Moussa Ndiaye bi le waaye daal gis nañu ne jamono bi dina génn ay weer ndax li nga xam ne mooy opération nga xam dal na am ci clubam di Anderlecht Ibu Adams moom international gambien la moom dañ ko dal di appelé fële Derby County voilà jamono bii mu nekk transfert boo xam ne sotti na moom nag joueur Cardiff City la voilà ba tey foofu la ca championship bu Angleterre waaye ab la nañu ko ba saison bi jeex kon foofu la ca Derby County nekk ca championship bu Angleterre. Chelsea Football Club moom seen fexe mooy dal di dégg nga ma ab kii de André Santos foofu la ca Strasbourg nekk ca France. xam ngeen ne nga xam ne ñoom moom Chelsea football club ñoom moom club boobule voilà ki nga xam ne mooy Vera moo leen di tàggat jamono bi André Santos nag dañ ko able woon ci Nottingham Forest waaye joué wul loola tax Chelsea daal di koy récupéré ci jamono bii nag bëgg nañ ko able foofu la nga xam ne mooy ci Strasbourg fileeg saison bi di jeex su ko defee xëy na mu war a mën a amaat tuuti ci ay tànkam ngir war a dellusiwaat ci équipe boobu la di Chelsea football club ñu ngi xool fileeg marché bi di tëj maanaam fileeg ki waxtu ba xam fan la mbir moomu di mujj bu dee Luka Modric nag moom dafa daal di rejeté li nga xamante ne mooy offre bu jógee ci Arabie Saoudite waa Arabie Saoudite mën nañuy wax ne diggante daaw ba ren topp Luka Modric ngir signé ko waaye daal jamono bi mën a guñ ci am ndam li nga xam ne daal mooy yéeneem mooy daal di prolongé contrat am des foofu la ci Real Madrid moom de jeu jamono jamono bi nag jagul gul contrat maanaam fi mu ni jamono yi ni mbir yi doxee bu fekkente ne continué na bu saison bi dem ndax kat mana nañu wax ne ay weer képp ci di waa Saudi li nga xamante ne mooy cong gu mujj gi kii di Luka Modric daf ko dal di turn down maanaam du dem foofule loolu nekk loo ba dal dinañ koy fësal ci kayit yi xibaar yi ñii di waa Nottingham Forest dal dinañu signé ki nga xamante ne moom la wax Joe Reyna jógee foofu la ca Borussia Dortmund loolu transfert la boo xam ne officiel na moom kii nag ab américain la gone gu xarañ la nag am xarañ te mën a football waaye nag dañ ko fa ab leneen nañu ba saison bi dal di jeex. balaa ñu wéy ci loolu ñu ñëw ci match yi nga xamante ni xewoon na ci ngoonu tey ji bokk na ci Barcelone bi nga xam ne dafa dal di am ndam ci kanamu Osasuna benn bal ci dara ki nga xam ne nag mooy Victor Roque moo leen may ndam moom nag nekkuloon titulaire dafa ci second mi-temps maanaam dafa dabe waaye dugal bit bi nga xam ne mooy jox Barcelone ñii di lii voilà moom nag bi moo nekk premier bit boo xam ne daal dina koy dugal ci Europe ndax kat bu ngeen bàyyi xel bi mu fa ñëw yàggul ci fan yi rek la ay semaine ci ginnaaw moom kii di moom tey ji am na match yu solo bokk na ci Man xam ne moom muy wéy di wane dooleem ak ñi di waa ki nga xam ne mooy Rodri Hernandez jamono boo xam ne Erling Haaland moom mu ngi woon ci banc bi gannaaw bi mu jóge woon ci blessure voilà ñoom nag ñoo ci dal di am daw comme ni leen ko waxee ñetti bal ci benn ci yooyu jamono nag ki nga xam ne moom la ñuy xoccool bopp classement bi wala bokk moo fa nekk ci jamono bii ni Liverpool gën a dëggal boppam ndax daf doon joué digganteem ak Chelsea Football Club waaye nag dal koy jaay doole dëgg ndax kat ñeenti bal ci benn la Liverpool dal di dóor Chelsea Football Club foofu la ci Anfield Diogo Jota marqué na benn ki ñuy wax Conor Bradley marqué na benn kii de Dominique Szoboszlai marqué na benn ak ki nga xamante ne lañ wax Luis Diaz lii mooy ñeenti but yi nga Liverpool am nañu ko bu dee Chelsea Football Club nag Nkunku moo marqué benn but bi nga dal dinañu koy am muy victoire bu yaatu kii di Nicolas Jackson nag moom teewul bokkul ci match bi ndax kat nee nañu voilà sénégalais bi ñu jógee ci kan boobu la joxuñu yoon kenn autorisation ngir nga jóge noonu rek war a mën a jàll ci sab club donte na Chelsea yéene moo doon kii di Nicolas Jackson jaare noonu ngir mu war a bokk ci match bi waaye nag joueur yëpp dañu ñëw ci ndakaaru loolu tax kenn teewul ci sab club ngir war a mën a jouer ci li nga xamante ne mooy jógante yi ñuy amal ci jamono bile Tottenham bu Pape Matar Sarr ñoom tey ji seen digganteek ñii di waa Brentford dal ñaar Richarlison marqué na benn ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Brennan Johnson ak kii di Odoji moo marqué ñetti but yi nga xamante ni voilà ñoom waa Tottenham am nañu ko bu dee Brentford nag ki nga xam ne mooy Ivan Toney marqué na moom mi nga xam ne fan yii la tàmbaliwaat joué waaye daal moom delluwaat na buum ca booy boy ge mu ngi marqué ay but tey jii da cee mujj Aston Villa moom mën nañu wax ne daanaka lu jóge ata ngi ne kenn dooru ko woon ci dëkkam te lu jeex na ndax kan ñi di Newcastle United ñoo yàq lépp Newcastle United moo door ñi nga xamante ni voilà ñoo di waa Aston Villa ñetti bal ci benn te loolu nag ne nañu depuis janvier wala février 2023 ci la ñu gëj ñàkk match ci seen dëkk ñoom waa Aston Villa voilà muy kii di Unai mr ak i goneem nga xam ne xarañ te dëgg lañu am waaye daal ñi di Newcastle jamono bi ñoo fa jaar yàq lépp ndax kat jamono bi jël nañu defet ci seen dëkk comme ni la ko waxee lu jege at gannaaw ga Cristiano Ronaldo moom du bokk ci match bi nga xamante ne ñoom war nañu ko am niki suba Al Nassr war a joué seen digganteeg Inter Miami bu Lionel Andrés Messi bu ñu sukkandekoo nag ci taskatu xibaar li ñu xamle mooy ñoom waa Al Nassr bëgguñu jël benn risque jëloo ki nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo gannaaw bi nga xamante ni dafa am blessure voilà mu nekk match bu am solo boo xam ne ñu bari dinañu bëgg gis kii di Lionel Andrés Messi ak Cristiano Ronaldo ñu joué waat voilà ci benn terrain. waaye nag jamono bi mel na ne lool du jàppane ndax kat club ba def na communiqué di xam na ne Ronaldo du jàppane ngir mu war a mën a joué ci jongante googule ñoom waa Al Nassr nag ñu ni ci saison voilà man nañu wax ne ci digg saison la nekk bu fekkente ne Inter Miami la nag ñoom ci pré saison la ñu nekk ndax xam nga ñoom seen saison jeex na bu yàgg voilà ci wàccaay la ñu nekk di waajal seen bopp voilà ci loolu nag la ñu nekk fan yi nag joué nañu benn match seen diggante ak Al Hilal bu Kalidou Koulibaly ci gannaawam ndax Koulibaly boobu mu ngi ci kan bi Al Hilal moo ci amoon ndam suba nag war nañu joué waat comme ni la ko waxee seen diggante ak Al Nassr waaye daal kii ko dal di wuute coowal bi naan ndax dafay dem moom dem nga xamante ne jamono bi lëmbee na taskatu xibaar yi voilà am na nag yenn taskatu xibaar yoo xam ne ñëw nañ ci bilan am mën nañu wax na juróom-ñeent at yi nga xamante ne dal na ko fiy def moom kii di Aliou Cissé joué na ak lu toll ci 93 ci ay match maanaam juróom-ñeent fukki jongante ak ñett dal dina koy jiite équipe nationale bi am ci lu toll ci 69 victoire ak 21 match nul am ci li nga xam ne mooy douze défaites gagné na nag li nga xam ne mooy benn kaan dal di ñàkk li nga xam ne mooy benn final ba tey ci wàllum kaan joué li nga xamante ne mooy ñeent kaan maanaam ñeent yoon dal na koy jiite équipe bi dem ci coupe d' afrique des nations li nga xamante ne mooy coupe du monde it dem na ca lu toll ci ñaari yoon voilà jamono bii nag mën nañu gis ne Sénégal moo nekk fukkeeli équipe ak juróom-ñett ci li nga xamante ne mooy àdduna bi bu ñu bàyyi xel at yi weesu Sénégal moo nekkoon première équipe fii ci Afrique voilà jamono bi xam ngeen Maroc la waaye lu jege ñetti at wala lu mat ñetti at Sénégal nekkoon na première nation africaine loolu nekkoon lu am solo loo xamante ne loolu yëpp liggéey Aliou Cissé moo ngi ci kon nag loolu mooy li nga xamante jamono bi jàngat nañ ko ci mbiram dafay demam du dem fi mu nii lambee na kay di xibaare ndax kat li nga xamante mooy éliminatoire yi a tàmbali léegi-léegi ndax a dox suñu ndax xam nga coupe d' afrique des nations bi ak coupe du monde bi ñaari la yoo xam dañoo teg dañuy joué coupe d' afrique 2026 ñu war a joué mondial te lii di éliminatoire jamono bi ñaar yëpp a ngi daw match yi dañu takkarnaase moo tax risque na pour ñu dal di koy libéré mu dem ci jamono bi lé pour na li ne ko waxee woon rek dinañu wéy di ko topp lépp la ci ruus rek dinañu delluwaat file am na nag sénégalais yu bëri yoo xamante ne jamono bi seen yéene mooy indi ku mel ni Habib Beye ngir mu daal di wuute ki nga xamante mooy sélectionneur national di Aliou Cissé xam naa nag loolu moom ñu bëri am nañ ci wuute ndax kat am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne Habib Beye moom fi ne nii kenn du laam-laami ak bëggam Sénégal ndax ancien international sénégalais la beneen bi mooy yàgg na toog ci li nga xam ne mooy chaîne tubaab bi di défendre Afrique rawatina loolu moom bu fekkee wàll kenn laam-laamewu ko waaye ndax li nga xamante ne mooy expérience bi mu soxla ko loolu moom beneen wax la te nag dafa nekk ci contrat jamono bi ak équipe am boobu nga xam ne mooy Red Star ndax kat ñoom jamono bi seen yéene mooy dal di monter ci Ligue bi ni ki déwén Red Star mooy équipe bi nga xam ne Cheikh Ndoye fa la nekk Habib Beye li mu bëgg mooy monter ci Ligue ba te jamono bi nag ñoom ñoo jiitu voilà ci li nga xamante ne mooy classement bi est-ce loolu moom dina ko fa bàyyi bu fekkente ne maanaam ñii di euh, fédération bi dañu ko dégg maam song ngir mu wuutu Aliou Cissé maanaam loolu dafa nekk biir boo xam ne jàpp nañ ne xëy na du jàppani loolu yëpp ay débat la yoo xam ne dafay daw rek ci internet bi moo tax ñu lay koy yeggee voilà waaye nag am na ci ñeneen ñoo xamante ni ñoom gis nañu keneen bu fekkee Cissé dafay dem ku ci nekk nag accessoire ñii ñu ngi naan Pape Thiaw ñii naan Omar Daf ku nekk nag voilà ak ki nga xamante ni moo la gënal loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ni maanaam ay débat rek la yu nekk ci internet bi voilà waaye ni comme ni leen ko waxee rek mbirum Cissé moom dafa concerné sénégalais yi bu baax a baax dinañu di ko topp kon gars lépp lu ci ruus danañ ci dellu siwaat lii moo fi gënoon fes kon na leen si Sen Sports 221 the best sport news channel